xew-xew bu rëy biir ginnaaw raay mën nañoo wax ni du lu ñuy faral di dégg wala sax di gis ay yamba yu ñu sol ba mu fees ci biir ay gaz yu 12 kilos commissariat d'arrondissement bi nekk ci diwaan bi moo def découverte bile ci naka weeru sulet bi ñu génn takk der yi jot benn renseignement buy fësal ni am na réseau bu mag buy yëngu ci trafic de drogue ci biir ginnaaw raay te ki ko jiitee naam duñu leen mën a wax turam waaye jàpp leen ci AD ci noonu le policier yi teg benn dispositif de surveillance et d'identification bu am solo ci bërëb yu ñu leen tegtal laata ñu am résultat yu dëgër def nañu fa ñaari ayu bés maanaam quinze jours bés bu yàlla sàkk takk der yi nekk ci commissariat bi te fare ci service bu brigade de recherche bi ñi fa daan nekk nag di élément yi fare ci brigade de recherche bi nekk ci biir commissariat bi ci guddi samdi jàpp di dibéer ay waxtu romb ñu seen benn waay dugg ci benn kër bu ñu suspecté bi mu génnee policier yi teg ko loxo fekk ci saak bi mu yoroon benn kilo yàmba waay ji ñu jàpp du guléet takk der yi di ko teg loxo ci ay coowal yàmba ñu mën a jàpp ci turam MF moom moo wan ndawal buur yi lee nekk bi mu jëlee yàmba bi lee ci noonee policier yi def ab perquisition fekk ci néeg bi kii di AD mooy ki ñu leen waxoon ci suñuy ndox ndoxteelu kàddu di ab vigile waaye ci jamono ji d'après information yu ñu am dem na retraite ci biir néeg bi fekk nañ fa ñaari gaz 12 kilos yu ñu sol yamba ba mu fees ak i marteau tournevis ak lame de scie ñu njort ni matériel yi la aade doon jëfandikoo ngir mën a gaz yi jël yamba bi mën koo jaay ci jàkkaarloo bi mu am ak takk der yi aade xamal na leen ni drogue bi mu ngi jóge ba naa ca Casamance te ki ko daan yónnee moo koy bay sol ko ci gaz yi lata mu koy yab ci bus yi ñëw Dakar ci jamono ji nag AD ak MF déféré nañu leen ñu ngi leen toppee association de malfaiteurs ak détention et trafic intérieur de drogue